mooy sikkar si gën ci sikkar yi yéen su ne xayru zikri laa ilaaha illallah wa xayru duaa alhamdulillahi rabbil alamin gën ci sikkar moo di laa ilaaha illallah ku nekk ak maqaama la am na aw xat am na ab taal am na taali saal mooy bi nga nekk ci biir saal ba ñoom saar waxee laa ilaaha illallah lañ namm laa maa boole baax amut kenn ku xëyoo jaamu ci dëgg waaw li mooy yàlla rek day day buri ñuy soo bu jëm ci yàlla xam ne jox nañ lépp gannaaw yàlla rek lañ bëgg waaw ñoom suñu waxee ne laa ilaha illa dañoo wax ne daal maxsuuda bi àqin ci waaw amul dara lu ñu war a jublu waaw ci dëgg dëgg lu dul yàlla rek day day waaw ñi nga xam ne ma gën a ñor deful yàlla ñoom suñu ne laa ilaha illa la moo jëre bi àqin ci waaw dañu wax ñoom amu dar lo amu nam tak dadi tadi ni ni ni ya la rek rek ya ha tayi ini tu ma kaat tayi di ha ma tayi di ha at tayi di ha ka kaat tayi di ha mo ni la ya la la la ho nak ni de ni ka biya la rek rek ma ba ni de lo ni ndang ni ka ya ha tayi di ha mo ni la la la anta يندقوا بينك وحركته وإذا كاس كاس الموت وكاحرك يريد قد سبت لا إله إلا أنت ما لا إله إلا أنت